إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها فأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نغير وأعناب وفجلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرق منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالمرجون الخديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المسهول وخلقنا لكم من مثله ما يركبون إن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نشيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمشنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بخير حساب لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المشير قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين شرخ الله العظيم كرما دريعا مصطفى كرما برب حرف الززية انت يا الله بارك الله فيك أحببت رب العالمين مع العالمين والعالمين وانقاد أحببت إلى السماء جبهة كتف سرور أمام ميزان تر إلى السماء جبهة كتف سرور أمام ميزان تر سونغ سامي سامي تيوان naw ndaa xam leen jëm kaw ñoo ngi maako sik jub ngir kaaraange gi doy lii lañ ñu fooge ñun lii lañ baaxoo iskay ñoo ngi woo doomi réew mi ndax ñu bennoo tey déggoo bàyyi déngoo baaxul ngay digal gaal gi Sénégalu jàmm tay ne koy ta bà hiu đơ gu ấy phát phát siêu xe lửa xin bó cô hát lửa lên nhờ đuyện nghi đem إنني أصحو صباحا ولربي أتقرب إنني

Cheikh to God. Sodo Amam Mizan Tark. lépp yéen leen ma wéyal leen yéen fi ma taxaw wéyal leen ma. taal am na solo lool. fi tàmbalee mooy ci dee. dee nag baax na waaye du yàq du diggante moom da yàq programme waaye mat naa bàyyi xel nag eh, ndax suñ la jaxle ne woon na loo xeejee xeej du tee dee def sa gan wër te loo ko berndee lu du sag ru du génn sa kon dee lu mat a bàyyi xel la waaye ñu teg ca bàkk réew muy Sénégal Sénégal suñu gaal nan ko bokk liggéey nan ko bokk sàmm nan fi jëmbat jàmm ak mbokkoo waaye fi ñu jeexale mooy bakk Seexuna Seex Ahmadul Xadim radiyallahu anhu ana sopp Sëñ Tuubaa yi dafa ma xool waaw ku sopp Sëñ Tuubaa rek ah yéen ci man de jeexal na ñii laa wax ñëpp laa ku sopp rek laa ku sopp na gën si ku sopp Sëñ Tuubaa nga tat juróom-ñaar tat yu mooy sunu dundu ba nuy dee ñun dañuy gën a bëgg Sëriñ Tuuba te mooy sunu a bëgg a masta am ta du amit sunuy xol Bamba rekk ji dëkk masta am ta amit sunuy xol Bamba rekk ji dëkk jëfum ji masta am ta amit sunuy xol Bamba rekk xasiida te lii kat firnde la ci ki nga bëgg ba noo jóg fenti way di ko tagg te kat firnde ci ki nga bëgg ba noo jóg fenti way di ko tagg ku dul yow Bamba ñun bëgg nu ko te Tuuba foofa lan bëgg dëkk Serigne Touba te mooy sunu dundu Serigne Touba te mooy sunu ñun dañuy gën a bëgg ba ñun dañuy gën a bëgg ba nuy dee ñun dañuy gën a bëgg jëfam ji masta am ta du amit jëfam ji masta am ta du amit sunuy xol Bamba rek a ci dëkk te lii kat firnde la ci ki nga bëgg te lii kat firnde la ci ki nga bëgg te lii kat firnde la ci ki nga bëgg ba noo jóg fenti way di ko tagg ku dul yow Bamba ñun bëggoon ko ku dul yow Bamba ñun bëggoon ko ku dul yow Bamba ñun bëggoon ko Touba foofu lan bëgg dëkk ma woy fi góor ga dem dëkk añal fi mboolem xarnu bi di ko tagg ma woy fi góor ga dem dëkk añal fi fi mboolem xarnu bi di ko tagg Sëriñ Touba demoon na fi Gabon demoon Ndar dem Dakar ki dëkk nga bëgg ko Bamba rek la nu bëgg nga bañ ko Bamba rek la nu bëgg nga bëgg ko bamba rek la nu ay jur dañu ba tax nañu fam ñu jox ñu ko nuy xamal islam ñu am diine lislaam am diine nañuy wettal borom asamaan nañuy wettal borom ngir diine mu yónni rasul ngir ko الرحمن في الدين هو الرحمن في الدين ناني أزكى لجل جرم ناني أزكى لجل جرم ديوار غير يالله ko manee nañi aji Makka suñ ko manee mooy suñu njiit rasulullahi mooy suñu njiit dañoo yaruwan ñu luy diine dañoo yaruwan ñu luy diine nañi bañ am bon nañuwul maam yi bañ ak bon huwal mal man ñi ngir diine ñi war mal man ñi ngir diine salaatul déedéet na koy der jow baaxul lan la ci yàlla wax a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmanir rahim waylul li kulli humazatin lumaza yàlla rëbb na képp kuy jow ci batak làmmeñ kon loolu yàlla na ci yàlla musal daas booy nelaw lan ngay wax bismika allahumma amuutu wa ahya boo yeewoo na alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur yonent bi sallallahu alayhi wa moom la yàlla yónni pour mu xamal ñu suñ diine amoon na at ak ñett ci kaw suuf amoon na juróom ñeent soxna soxna Aysatu moo ci gënoon a ndaw bu ko yonent bi takk moo ngi amoon juróom benn at

xale yi ñu ngi jàllale ay bind yoo a na euh, euh, mooy jaxase nit ñi ndax ko képp koo yàq rek euh, danga am daane yàlla kon di bàyyi xel loolu baax waaye nag am na ñaan yoo xam ne sooy ñaan nit ki boo tëdd da am la war a ñaan boo yow da am la war a ñaan waaye ñu xamal lu kan mooy soxna yonent sallallahu alayhi wa sallam ku ci mel ne Sayyida xam ne ca xam-xam ba ak euh, ay yu kawe euh, mu nekk roy waaye mbooleem jigéen comme ni ko soxna Diarra nekk ak soxna Mariam Bousso incha allah xam naa ko ñaari wooyu leen ànd ànd ak ñoom ba léegi ndax day mel ni ñoom li ñu préparé dafa bari lool tabarakallah ndax lépp rek seen sayda ndax boobu léegi ñuy taxaw di orienté euh, kon bisimilah ba léegi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. tey damaa ñëw pour laaj sama mbokk mi leen si waxtaanu Serigne Touba. tey damaa ñëw pour laaj sama mbokk mi leen si waxtaanu Serigne Touba. Cheikhuna Cheikh Ahmadou Khadim ku sopp Sëriñ Tuubaa nga tàcc xale tàcc yow xumba xumba xumba xumba xumba xumba bamba di kenn sëñ bamba bamba di kenn sëñ bamba bamba di kenn sëñ bamba bamba di kenn ku kenn dal wala jar ci yoneen tagg am du ko way tagg am du ko way laq ay gërëmam kaab bu asaan wal buusir ñi mën a way am xalam ak di nas moo koy sar di ko way déete yow kaab moomee ak xasan la mu daa wéyal bu séeru mam xaadim lu na bu siida barke la am na solo kooku mooy Seexuna Seex Ahmadu Xadim ku mat a jàngale ku mat a xamle tabarakallah loolu mooy war ngeen tànn biir bi ndax fi ñu koy tàmbalee ngeen tàcc ndox bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ngeen tàcc ndox tàcc yu xumba xumba xumba xumba xumba xumba xumba ayaa man yaddaxil fahmi ayaa man yaddaxil fahmi ayaa man yaddaxil fahmi ilaakam yaa aqal waxmi tuxatti sama wa sama wa tuxatti saata al jamma amaaba wax na compétition jeune en herbe bu la ñuy présenté wu nii donc euh, presque classe yëpp ñoo si bokkoon buñ ci bokkee ñu compétit di compétit compétit ba si nag ñaari classe yi ñoo dem final muy C2 B ak C1 B donc dañuy poser ay questions si français yi nga xam ne moom jàng après ñu ko poser ay questions si arabe yoo xam ne moom lañ jàng ah. donc ñaari kii la leen di poser ci arabe ak si français français. Donc, la classe de C2, B, et la classe de C1, B. on va démarrer. Oustaz, on va démarrer par le franc, français. Je pense français, bi soxla français français. Waaw. léegi ñu ma jëlal ma bi jëlal ma jëlal ma kii bi jëlal ma point yi. Ndiaye jël ma point point yi. estilo ah. man mën naa toog ma toog posé question bi waaw ma taxaw mu gën on peut démarrer on peut en français ban classe laa commencé C2 wala C1 je commence par C1 ou C2 donc avant de commencer vous allez vous présenter d'abord dégg ngeen Adja toi tu te Bon, bonjour les élèves. Je m'appelle Kader Je suis en classe de C2B. Bonjour les élèves, je m'appelle Fallou Diallo, classe de CDB. Bonjour les élèves, je m'appelle Fatou Ndiaye, en classe de CDB. Bonsoir mesdames et messieurs, et les élèves, je m'appelle Bouba, je suis en classe de CDB. Merci pour votre présentation. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les élèves. Je m'appelle Diara, Madame Emus. Classe de C1. Bonsoir les élèves. Je m'appelle Faluning, de la classe de C1B. Bonsoir les élèves. Je m'appelle Vasendongo. Bonsoir les élèves. Je m'appelle Wakaka. classe de CM1 bi voilà donc merci de votre présentation donc les deux équipes tous sont présentes on va démarrer commencer fi jox benn boo ma jox fa laay commencer dama jox benn rek boo ma jox fa laay commencer donc on va démarrer par la classe de C2B boo ñu mayee tuuti ngeen déglu ndax question yi dañ leen koy laaj ci li ñu jàng français ndax dugg na seen bopp wala dugg seen bopp yi moo leen di laaj silence un peu, silence. La première question est pour la classe de C2B. En quelle année a eu lieu la bataille de Danki En 1549. En 1549, juste très bien.

Ça prend du temps. On avance, hein? On peut avancer. Que... Tu vas donner question. Voilà, on peut avancer. Hein? Voilà, on avance. d'Afrique. La réplique. Quel... Citez-moi les deux symboles de la République du Sénégal. Moi, citez deux symboles de la République du Sénégal. Je vous dépose... Nengawa. Vous serez Sénégal. lañ amee indépendance. deux symboles de la République du Sénégal. on avance. d'accord d'accord. zéro point pour la République et zéro point pour un. donc les symboles de la République du Sénégal on peut citer le drapeau national l'hymne national la devise waaye oui. c'était que ça. Vous avez bien compris? classe de C2B. Vous suivez, écoutez, écoutez attentivement. Prenez votre bic et vous écoutez. Un terrain rectangulaire mesure 6 de long et mètres de large. Calcule son périmètre. Un terrain rectangulaire mesure mètres de long et mètres de large calcule son périmètre. Un terrain rectangulaire mesure 6 décamètres de long de large calcule son périmètre. da ngeen di gaaw rek encore. 6 décamètres de long et 40 mètres de large 40 mètres de large calcule son périmètre en mètres. Vous avez fini Vous avez fini 200 périmètres. Très bien, 200 mètres de périmètre. Vous marquez 20 points. C'est 220 mètres de périmètre. Votre micro, s'il vous plaît. On La classe de c A, B. Un terrain carré. Mesure 10 mètres de côté. On l'entoure en laissant une porte de 2 mètres. Calcule la longueur du film d'affaires. de 10 de côté, 10 mètres de côté, mettez 10 mètres de côté, et entouré d'un double rang, d'un double rang. ko bu. da ngay wax may ko mbind après nga waxaat. waaw d'accord donc un carré de 10 mètres de côté et entouré d'un double rang, d'un de film d'affaires, de film d'affaires, d'un double le film de fer le film de fer de fer en laissant en laissant une de 2 mètres en laissant en aménageant de 2 mètres en laissant une porte de 2 mètres

en laissant une corde de 2 mètres calcule la longueur du fil de fer. 76. 76, ok, juste 76. Très bien. Donc, juste pour. 3 de C1. Ok, donc, C2, B. Donc, vous donnez la nature et la fonction, la nature et la fonction du mot dans la phrase ci-dessous. La phrase suivante. Vous donnez la nature et la, fonction du mot cahier. dans la phrase suivante. Vous Le traiteur. Le tra la phrase, écoutez la phrase. le directeur le di le directeur le donne le directeur donne des cahiers le directeur donne des cahiers aux élèves la nature et la fonction de cahier le directeur donne des cahiers aux élèves, on donne la nature et la fonction de cahier. Vous écrivez, écrivez s'il vous plaît. Vous avez la phrase. Il faut la phrase. Vous donnez la nature et la fonction de cahier. aux élèves. Connaît la note et la fonction de paix. Adja, Allez, vous avez fini. Donne la réponse. On écoute, s'il vous Hein? Allez, donne la réponse. Uh -huh. Allez. Cahier. Cahier. Uh -huh. Non comme Très bien. Divers verbes. Uh -huh. Cahier. Pas cahier. Complément d'objet direct. Complément d'objet Très bien. Très bien, cahier. complète non comme de choses, complément d'objet direct du verbe donner. On pose quelques questions trouver. On pose la question. Le directeur. Hein Le directeur donne. Donne quoi Donne quoi, bon. écoutez. C'est un bien. Quel est le mode de reproduction de l'âne? Quel est le mode de reproduction de l'âne? Le mode de reproduction de l'âne. Donc, quel est le mode de reproduction de l'âne? Reproduction de l'âne, le mode de reproduction de l'âne. c'est pas comme ça. mais par contre la réplique. Vivi Par. Vivi Par très bien 20 points. donc le mode de répétition de l'art c'est Vivi Vivi Par. ah c'est Vivi Par. Aja ah, c'est moi. Donc ça sont les questions pour les leçons. On va passer aux questions de culture générale. Vous avez deux questions de culture générale aussi, vous avez deux questions de culture générale en français.

ci match bi amoon ci diggante Sénégal ak Mauritanie match bi passé voilà quel joueur sénégalais a marqué le but du match entre le Sénégal et la Mauritanie. Habib Diallo. très bien Habib Diallo c'est Habib Diallo qui a marqué le but déjà on avance. gaz. retour bi. qui te jettera pour la classe de CE1 grand magal de Touba qu'est-ce que marque le grand magal de Touba lan magal Touba lan moo ko sabab lan moo sabab magal Touba aja baba ko solo aja on avance on avance lan moo sabab magal Touba aja bi sëñ Tuubaa jógee ci géej ah? nee nañ ko Tuubaa la yàlla bi sëñ Tuubaa jógee ci géej nee nañ ko sant la yàlla c'est faux aja non non non non aja avance aja et ah? géej li sant am ah c'est ça ah combien na wi mais d'accord on avance pas dire d'accord on avance hein on avance ñoom ñu ne wi on avance voilà aja on va avancer voilà mais dina pas préciser il faut préciser bu sëñ Touba jógee si géej na ko sant yàlla pour lu tax ñu koy sant la yàlla pourquoi lan moo tax lan moo tax ñu koy sant la yàlla lan moo tax voilà dama bëgg leeral ma may la point voilà daal sallallahu taala waa mbokk waa caaween ndikko ndilliki boofeel kër daaru sow anoor yi xur ak li wër ñi ngi leen di nuyu di tàmbale suñ kàddu ca bëggit ngeen taatan ko bu baax a baax ndax kilifa gi ñu fi yónni muy le maire monsieur Abdou Lahad Ka ci sëñ bi dénk ko commune Touba moske doon waa fii bokk ak ñëpp xam ne lii gannaaw ba mu yilifee commune bi Thiawéne bokk ci daf ci amaat beneen cër boo xam ne bii cërub biir la ba tax mu yebal ma fi li mu bëggoon nag mooy ñëwal boppam waaye ku ne xam na ne ay itteem léeg-léeg da koy tënk ba lu mu ko bëgg bëgg bëgg du ko man ndax ndigalal sëñ bee man lépp kon kàddu yi ñu fi yëkkati ñu ngi koy yëkkati rek ci turu sëriñ Abdou Lahad Ka ak ci ndigalam di nuyu nag borom dëkk bi muy euh, sëriñ Cheikh Saaw sëñ Cheikh ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ziyaare di la xamal ne ñëw nañ ci ndigalal euh, sëñ Abdou Lahad Ka maire de la commune de Touba Mosquée di jot la am nuyoo bu jëm ci population bi yëpp ñi nga yilif ñëpp bàyyiwuñu kenn di yónnee aussi am nuyoo boo xam ne bii day jëm ci képp koo xam ne ke da bokk ci anoor yi li wër école bi yëpp di wax ne nag bi may ñëw bàyyi laat muy le maire lu ko li ko lii ñoree tax na mu boole ma ak maam Cheikh Ka defe naa maam Cheikh Ka fii kenn du ko fi laajte euh, daana mën nañ ne mooy dëkk bi kon toujours de wane rek pas-pas bi nga xam ne bii monsieur le maire am na ko ci seen bis bi di nuyu képp koo xam ne kii bis bi taxaw nga ci ba mu taaroo nii di tàmbalee ci la maître de cérémonie ah, maître de cérémonie bi sëñ bi tubaarkàlla ndax bis li koy defar ña koy taxaw ca lay tàmbalee. Moussa mbokk yi day am loo xam ne nag wax dëgg yàlla du teraangaay gan ku am gan gu am personnalité. en tant koo xam ne dañ ne la sa maire di jiite dëkk bi Touba di nuyu rëy moo teew fii wala boog ñoo teew fii di ko jot ci kàddoom ah nañu dem ci Ikraama day fi ne lii ma ni ñoom laaju ñu kenn dañoo ñëw ngir xam soxlay dëkk ak soxlay gox bi kon nan leen teewlu ngir yàlla bu ko defee bu ñu demee kan man lay waa Touba Thiawéne ndikku tabarkalla te defar nañ ko ba mu baax ba egg si fii nan leen teewlu ngir yàlla ngir yàlla nañu wàññi wéy ci tuuti jërëjëf kon di nuyoo équipe pédagogique bi fi nekk ci seen jawrin doon sëñ Matar Ndiaye muy enseignant boo xam ne xam naa ko bu baax a baax a baax a baax a baax ndax liggéey naa ak moom ay at ba jóge fi nekk directeur ci ndindi jógewaat fi ñëw ci yéen ñi di ko nuyu di ko sargal di nuyoot équipe pédagogique bi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi di nuyu yeneen enseignants yi nga xam ne ñëw nañ jàppale ko ci bis bi gis naa fi suñu àll géey mooy mooy directeur boo xam ne nouvellement affecté yaakaar naa di nga mën a doon ay voisins yu mën a àndante ci liggéey bi ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp xëy na de soo dee lim mën naa am doo jaar ci seen doo mën a jaar ci seen tur waaye rek nañ xam ne ñoom jàngalekat yëpp. francisant arabisant ak kum ci mën ni doon ñu ngi leen di nuyu di leen sargal ndax bis bi ni ngeen ko defee rafet na ñu ngi nuyu aussi sëñ daam ndax moom suñ partenaire la ku jàpp ci liggéey bi la ci biir mairie bi ci biir lépp loo xam ne les populations dañ ko soxla ci wet gi loolu xam nañ ko yëg nañ ci gis nañ ko kon moom it ñu ngi koy ziyaare bu baax di ko euh, di ko di ko di ko sargal ci bis bi monsieur le maire nag école ndik euh, euh, cawe ndikko bi bi mu tàmbalee dafa mel ni ci ay mbaar la woon amoon ay ñaari salle de classe ginnaaw gi yooyu tabax nañ ko tey jii mu ngi ci juróom-ñeenti cours kon mën naa am xam nañ ne am na li ñuy wax gab mooy ñoo xam ne ni ci ay mbaar lañ nekk tey di jàng te tuuti kon ñu mën a jàpp ne kon presque juróom-ñaari classe abri provisoire la waaye waa Cawendiko ngeen xam ne loolu maire Abdou Lahad Ka moo ko moo ko waxal boppam te ñor na ko ci bi may bi may ñëwit waxaat na ma ko dafa wax ne su sañoon fii am mbaar du fi taxaw waaye nag comme dafa boot ñëpp am na projet salle de classe yu mu war a tabax déwén ci biir commune Touba Mosquée lim bu takk la lim na ko wax na ko mu tolloog juróom fukki salle de classe waaye wax na ne cawe ndikko gi dana bokk ci école yi nga xam ne nii dana leen ca sédd ca loolu bu leen ko waxee war ngeen ko mën a gëm waaw loolu mën naa tàccu ndax ginnaaw xale yi suñuy xale la ci dañoo war a jàng ci ay conditions yoo xam ne yi yu yu raisonnable yu normal suñu fexee ba classe yu ñu nekk doon classe yu dogu maître yi seen liggéey dina gën a yomb xale yi seenam njàng dina gën a yomb kon nag loolu moom engage la engagement la boo xam ne bii moom jël na ko ne dana ko def léegi nag école kiñ ko tuddee muy sëñ Ibrahima Saaw am ngeenu sas ndax ab dëkk boo fa ñëwee ñu ne hôpital ba diw lañ ko tuddee wala ñu ne dispen euh, wala ñu ne dispensaire ba diw lañ ko tuddee wala ñu ne école ba diw lañ ko tuddee wala ñu ne barab bee muy place publique diw lañ ko tuddee xam ne kooka am na lum doonoon ci fam ne am na lu mu fa def am na lu mu fa ba ba kenn du ko fàtte ñu bëgg moom ñu ñu éterniser ko kon nag yéen ñi nga xam ne nii yéen a seq école bi ànd ko directeur bi sëñ Matar muy nag sëñ Matar moom ab directeur d'école la waaye na ngeen xam ne ab sëriñ la boo xam ne bii sëñ Touba rek la gëm loolu mën naa ko kaa seddeel ci yaakaar naa ne fii lu fi nit di wut jaaree ko ci sëriñ Touba jaaree ko ci euh, taalibe sëñ Touba. war nañoo rafet njort ne buñ ca boolee xalimaak waa waa waa xur wi yaakaar naa ne ay cadre war nañ leen a mën a xaar yoo xam dina génn ëllëg fii ndax kat fii bërëbu cosaan la ñi fi nekkoon am na luñ doonoon am na luñ àndanteeg Serigne Touba am na fuñ féete woon waaye jàppaar naa ne wàllu way ndare ñàkkut bokkoon na ci seen i euh, seen i am-am loolu nag buñ ko booleeg njàng mi mën nañoo jàpp ne bu ci ñëpp jàppee ci école bi bu ëllëgee président de la république bay génn mën naa génne fii ndax bu mujj bii fan la jóge ma ne président bi génn nii nekk Sénégal fu mu jógee ah njaga njaga ñaaw kon nag bu fekkee njaga ñaaw am na loola xur wii ak li fi sa borom def ci cosaan bu ngeen ci boole ñaangam addu mi yaakaar naa ne war nañoo jàpp ne ay docteur nañ fi génne ay président dina fi génne ay nit ñu baax nañ fi génne ñoo xam ne bu ëllëgee danañ doon ay fonctionnaires yoo xam ne yi fuñ nekk ak jub lañ fee nekk ak jubbanti ni ñu koy waxee ak jubal kon nag nañ gën a jàpp bu baax a baax ci liggéey bi na ci def def seen loxo feet bii nag feetu xale yi la ndax gone bu dee jàng toute une année mu jàng ko mar na bu demee ba école di bëgg a tëj ñu am luñ ko bàyyi loo xam ne day doon loo xam ne des ci boppam tax buy dem yóbbaale ko ca vacances ya ci bu ëllëgee dana doon wàccaa ci moom ndax day wax ne bu ëllëgee man ka dinaa def lu gën a euh, ak njàmbaar danaa ko yokk pour que suba ñay am ay neexal ma bokk ca ñay raw ca classe ba ba bokk ca loolu nag wàllu waajur yéet mu ngi ci bu baax a baax a baax ndax école li muy joxe ci biir école bi dafa doon loo xam ne nii rek day mel ni dugub bi suuna jun soq rek léegi nag dañ ko war a euh, foofu dañ ko war a mooñ dañ ko war a togg sogalu ko dem ci gémmiñ kon école yi muy tabax yéen parents d'élèves yi da ngeen jotee xale yi ci kër yi ngeen leen di surveiller di leen jàngloo même ngeen ci xamu dara di leen toogloo di leen moytuloo li nga xam ne lii tey jii moo yàq jeunesse bi njàng nag leen dong lay jariñ ab làmp la ci kuy dox biir ak lëndëm soo bëggee xam sa magi ëllëg lu ñuy mel xoolal ci sa ndawu tey ni ngi leen di former xam naa bis bi xaw na xat mën naa continuer di waxaat du jeex waaye nag liy duuf lépp xajul ci ndab li waaye xam leen daal monsieur le maire Abdou Lahad Ka ànd na ak yéen bis bi kontaan na ci lool ci bëgg na it mu gën a jëm kanam bëgg na cawen ko école yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy raw ci département bi bis bu ngeen demee ba àgg ci cm bu boobaa sëñ Matar bu say résultat génnee ñoo xam ne lii mooy produit Thiawéne ko te déggoon naa ak moom. bu loolu weesoo nag ma duf si sama yëfi bopp muy nuyu nag waa Thiawéne ndax Thiawéne ji sama rak bu ma bokkal benn baay mi ngi ci biir fii di fi sëy ñoo bokkee benn baay sama baay bàyyile ma ko borom sàmmee yor ko. maa ngi koy gërëm bu baax a baax loolu na ngeen ma ko jéggal waaye nit mbokk dafa fort dafa diis nu ma ko ñàkk bañ wax ñu ngi leen sant di leen gërëm tey ñaan sa borom def ci tawféex yëkkati xale yi yàggal fi mag ñi ci barkeb Serigne Touba monsieur le maire tamit ngeen ñaanal ko pour que mission bi nga xam ne moom lañ ko jox cëm diis gann ndax yow yaay maire Touba yaay xalifaab Serigne Touba loolu du lu woyof ngeen ñaanal ko ba sa borom defal ko ndam ci liggéey bi ci barkeb Sëriñ Tuubaa ca na ànd koog moom jërë ngeen jëf les organisateurs sim bismillah rabbi ishrah sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli barkeb Sëriñ Tuubaa ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi mbokki taalib yi fi tey yëpp kenn ku ne ci saw tur dafay saw sant di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Basiir xalifatul am di taahibatul muriidiyya yal na yàlla guddul fanam wérlu yaram wéral ko di ko wër ba sëriñ Touba kàddu yi nag dana gudd dana gàtt waaye danañ ci laal ay quelques points yu bare bare bare euh, tey nag dana dis lool ma wax ndax sama xol dafa sedd damay yàgg bëgg lii wala dañ ko yàgg bëgg suñ borom tey la dogal lii muy EFA bi ñu dippee El Hadj Ibrahima Moni Sow Touba Thiawéne di ko danaa ñëw ci lan moo tax ñu tudd Ibrahima saaw waaw euh, bi ñu nuyoo sëñ Mountakha ba pare nuyoo bi ñu ngi koy teg ci loxo directeur mu tegal ci loxo jàngalkat yëpp tàmbalee ko si ee bu Mbàkke Mamadou silla jiite ko ñu ngi wàcc léegi ñu doon jox diplôme am muy ne ñu baax ñu am yar ñu am teggin ñu xam ak doomu aadama saa soo demee e, boo demee bureau dem boo nuyoo dañ la fay dañ la déglu loolu la ñuy defee nit ci xam xam xam-xam ne ci place vraiment liñ doon man nañ ko kon Mamadou Sylla jërëjëf Sylla bi ñu taxawal école bi yaakaar naa bi ñu defee suñu rapport bind suñu dossier bi ñu ko dugalee yow la ñuy booleeg nga ñëw taxawal ñu école bi 2020. yaakaar naa 2020 ba 2024 tey boo ñëwee Thiawéne ak li ko wër tey xale boo fi làkk français wala nga làkk ko anglais wala nga làkk ko nga làkk ko arabe da tontu. alxuraan kasaalika naka noonu kon loolu dañ ci sant bu baax a baax a baax a baax sant it euh, directeur Pape Matar ak personnel bi fi nekk enseignant yi muy nit ñu baax ñu am xam-xam nit ñu yaru ñu dal ñu tey ñu bëgg dëkk bi bëgg euh, avancement wu dëkk bi yërëm xale yi parce que école bi bi ñu ko sampee amoon nañ ci tuuti ay jaaxle ñan ñoo fi ñëw parce que ku ne dégg na mbiri jàngalekat yi léeg-léeg yëngu-yëngu yeeg ni adduna yi demee mais ñi moom nit ñi set bëcc lañ saa suñ xale jëlee xale yi jox leen ñoom ñu ñëw classe ñun day mel ñu ngi ci kër gi car macha allah ñoo am ci yéene lool lool lool xale yi tubarkal macha allah man tout le temps damay ñëw ci école bi mais wax dëgg yàlla li ñuy def xam nañ ko mën nañ ko gëm nañ ko kon loolu ñu ngi ci sant bu baax ci turu Baye Cheikh Saw ñu di borom dëkk bi ak ñu dëkk bi yëpp nag parents d'élèves yeeg ñoo leen sant njaay ñoo leen sant di leen gërëm sant boo xam ne am na tàmbali mais barke Xaadimu Rasuul amul fu mu yem barke Sëñ Tuubaa nit ñu baax ngi nii ñu mot a baax ci école a ngi nii bu meloon ni yéen li ma mën a sëñ Bamba Mbàkke mooy dëkk bi ra xam-xam moom léemu dund ci réew mi am na ci yéen dëkk baax a baax baax moo xam ni moom du luñu mën a toog di ko wax ci làmmiñ barke alxuraan école bi boo gisee ñu tudd ko El Hadj Saaw en 1988 dafa jógee Gabon ñëw xool côté Touba bi njàng mi manqué trop jaay bi bëri fi donte jàng ne alxuraan waaye jàng ma ko loolu bëri da ngay jàng xam-xam jàng leen leen <coughs> parce que si Cheikh Mbacke daan wax naan xam-xam ma bokku ci Sëñ Muntaxa bi mu defee université bi nee na lu ci waay mën a xam na nangu xam waaw da kooru si Mbacke si lu ñu ran nañ ma ko bàyyee kon nit ki dafa war a xam dafa war a xam mu sant fi ñaari classe def ko franco ak arabe jàng ba wax dëgg yàlla am na cadre yoo xam ne bu lañ génne ba tey professeur yeeg yeneen yeneen wax dëgg yàlla macha allah loolu moo waral ñu dippee El Hadj Ibrahima Sow école bi suñu borom dafa jiitu dafa teer dafa mu teer a jiitu ne ko ñëpp ñaanal Ibrahima moom saaw Sow ku baax la woon ku social la woon bàcc sëñ Touba na ko ñëpp xame nii xam naa lim di bëgg wax bëri na bàcc sama xol bi rek sedd fag ma runge tuuti dégg naa ñoo si dëkk bi biñ ko sancee fii 1481 lañ ko sancoon maam yi jógeen Fuuta sancoon fële ca démb ñu ngi si juróomi téeméer at ak fanweer ñeent fukk ak lu topp parce que booy xool bi foofu xawee am tuuti yombatee après 1926 avant sëñ bi nelaw lañu fii caawen di ko pour ñu xamee fii dëkk bu yàgg la dëkk bu mën ne alxuraan la ay jaamukat yàlla bi ne taalibe sëriñ Tuubaa bi ne ñu bëgg lu baax fi nekk ñuy liggéey di jàng di jaamu yàlla di dimbalante def lu baax ma fi nekk kon daal xam naa li ma bëgg a wax bëri na waaye maa ngi sant ñëpp day gën a métti ci ñun nee na liggéey bi day gën a métti ci ñoom ndaxte nekkul ne école bii lañ njëkk a ñëw ndax sëñ Matar nee na nekkul ne école bii rek lañ njëkk a ñëw demoon na ñeneen école yoo xam ne nii amuñu kenn ku ñu jàppale directeur nee na demoon na yeneen école yoo xam ne dañ leen a seetaan amuñ kenn ku leen jàppale waaye bi ñu fii nag gis nañ ne population bi jàpp nañu ci liggéey bi waaye nee gis nañ ne population bépp sëñ Mor ak njabootam bi moom nag ñu beral ko ci loxo ndax moom daf ñoo téye. nee na sëñ Mor nag maanaam ci gàttal wàññi boo gis am na maanaam jàppal diw wala tàgge boo gis waaye da koy beral ko loxo wala beral ko cant ci li mu def ci liggéey bu rëy bi. dëkk bi nag ñëpp jàpp nañu waaye moom nag da cee raw. nee na ñëpp a jàpp waaye Mor da cee gën a fës da cee gën a raw. moo tax bi ñu waxtaanee équipe pédagogique bi yëpp. nee na moom bi ñu waxtaanee ak équipe pédagogique bi ñi jiital école bi yëpp rek. dañoo wax ne. nee na dañoo wax ne. sëñ Mor dañ ko bëgg dañ ko dañ ko maanaam xam naa ñun dañ ko dul mën a fay nee na ñoom ak équipe ba mel moom directeur nee na sax ci gàttal ñoom mënuñu koo fay ñoom jàngalekat yi. waaye kon ñu defal ko benn diplôme d'honneur. nee waaye kon dañu ko defal diplôme d'honneur. defal ko diplôme de reconnaissance. defal ko diplôme de reconnaissance. boo xam ne nii moom lañ defar nii bëgg koo jëbal. nee boo xam ne nii moom lañ defal bëgg koo jëbal moom suñu moor ndax mérite ko. amuñu li ñu la fay. waaye tàcc na ni waay tàcc na ni waay tàcc na ni waay tàcc na ni yee na ko lool mënuñu koo fay comme li ma waxoon ci sëñ moon rek nee ndax moom dañoo mu payam ak payam la ñëmu daal ci gàttal ndax moo fi nekk di saytu di defar ndax nee na moo fi nekk moom Baye Kébé mii di saytu ndax école mënut a ñàkk saytu waaye école mënut a ñàkk defar lépp lu mu gis loo xam ne nii maanaam dafa jaaduwut mu taxaw ci. na lépp loo gis loo xam ne nii méngoowut ak njàngale mi surtout njàngalem sëñ bi mu taxaw ci ba lu jaaduwut. loola nag maanaam yow mu yem mu daal ci yemale ñu teew ak ñu bañ nee na nag loolu defewu ko ngir sal ndax bu directeur teewee bu teewut bu teewut sax la ko gën a man kon yàlla tax mu def. moo tax moom it ñu defaral ko diplôme de reconnaissance boo xam ne. nee na moo looloo tax itam boo xam ne ni day firnde ne mënuñu koo fay waaye nag li muy def yëg nañ ko nee loolu day firnde ne mënuñu koo fay ndax tubaab loolu xam député de reconnaissance boo ko déggee mooy sa jaloore rëy na ba yoon mënu laa fay waaye sañ na def defal lii mooy médaille bu dul fay ba dunay tukki jërëjëf Kébé yàlla na sa njiglaay tàcc nañ loolu waay tàcc nañ loolu waay tàcc nañ Mbaye Modou Kébé te ñaanal ko mu yàgg fi jërëjëf Kébé léegi léegi waaw mbokk yi ñu teewlu mu mel ne mbir mi nag loolu wolof di wax naan ñu ngi bëgg a àgg ca mbànjaxaan nga nag ca yëf ya ndax ñu ngi jox diplôme d'honneur monsieur le directeur Cheikh Makhtar Ndiaye na ko ñëpp tàcc waay bokk yi na ñëpp tàcc ñëpp tàcc sëñ Makhtar dangeen maa bett mérite la mérite la de mérite la noonu baax na yéen da ngeen maa dem ci koy cër noonu baax na noonu baax na noonu baax na mbooloo mi Cheikh Makhtar directeur nee na mbokk mbokkam yi dañoo def surprise yi tubaab di wax dañ koo bett nee na. ndax dañoo defar ay diplôme dañoo waxtaanee dañoo waxtaanee defar ay diplôme tudd ay nit. nee na ñoom ñii di ay mbokkam di léppam di njabootam dañoo waxtaan defari diplôme tudd ay nit. ñoo xam ne nii dañ koo yeyoo lool. nee na ñoo xam ne nii dañ koo mérito dañ koo yeyoo. ndeke ñoom it boole nañ ma jox. nee na ci biir kër dem mbagar fekkoo mu ne ci ndax boole nañ ko ci mu midi kilifa école bi taxaw ma ko woon nee na te loolu surprise la te looloo dàq ci mbir yi def te yàlla tax def ki defal yëgu ko woon tinu ko jikkoy donga lañ ma def nee dañu leen a jaay dañ koo jaay jikkoy donga <laughs> waaye nag waaye nag euh, maanaam sunu ànd bi maanaam yow lépp rafet nee na ànd bii moo ngi seereel mbooloo mi képp ku dekk kàddoom xam ne wallahi laxasim nee na lépp rafet na ndaxte dinañu liggéey nee na sëñ Maxtaar Njaay nee na ndaxte dinañu liggéey diggante yi ñu daal di koy rataxal. nee na li gën a garaaw ci liggéey bi mooy diggante yi dañ koy rataxal ni ko yàlla diglee rataxal mooy nooyal lépp rek lépp neex. léppay nooy te liggéey bi du dox. Cheikh Matar Ndiaye nee léppay nooy te liggéey bi du teemu dox. moo tax nag euh, man damay sant yàlla. Matar nee moom day sant yàlla. bi ma yàlla booleeg ñoom. nee bi ko yàlla booleeg njaboot gu nii. ndaxte am na école yoo xam ne. ndax nee na na école maanaam ñoom comme ñun ni ñu amee jàmm maanaam jàmm amu fa loolu man daa mataar nañ ko nee maanaam école yooyu comme nii jàmm ji faxe fii ci école Touba Thiawindickou gii wallaay la xasim tourné ne yàgg naa tourné waaye gisub jàmm ju mel ñii di seeq fi yeneen école waaye fii ku ci gis sa morom nee na waaye fii ku ci gis sa morom maanaam da nga koy def comme sa bopp nee na da nga koy def maanaam nit sa bopp te loolu mooy yëfi julit moo tax maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax Makhtar ngi leen di sant leen gërëm di ñaan Serigne Touba mi nga xam ne mooy borom lépp ak fépp te defal na ko yàlla na nu defal ndam ñun ñëpp. waaw lu ma leen fayee daal waaye maa ngi leen Maxtaar nee na xam na sant suñu borom rek moom mooy mooy jeexantalu sant te maanaam jaajëf wala jërëjëf gàtt na waaye ku jëfu doo ko dégg kon jërëjëfal na leen fa sant commencé fa la tàmbalee. lii tamit bokkutoon ci loo xam dama koo séntu moom. Maxtaar nee lii séntu ko woon te looloo ci gën a yëm ndax da doon def waaye yéen da ko def ji defal ngir yàlla yow it nee na kon nag jërëjëf قد سأنا حزنا على صمت ربنا فصمتك يا ساءنا حزن على صمت ربنا صبرنا زمانه صبرنا زمانه ثم عدنا إلى الأسى وجودك يغني وجودك يغني وجودك يغني وأنت السميع قد سأنا حزن على صمت ربنا فصمتك يا قد سأنا حزن على صمت ربنا فصمت école bi Efa Thiawen di ko moom euh, ñu ngi ko créé en mi en deux mille vingt lañ ko créé mu tàmbale ak ñaari classe yoo xam ne ne effectif yi matoon na matoon na cent cinquante élèves parce que bu ne amoon na lu tolloog ay soixante quinze élèves à l'époque mais fi mu toll nii nag ren jii ñoo ngi ci neuf cours ñoo ngi ci ñoo ngi nekk ci deux yoo xam ne bu ci nekk def na plus de soixante seize nekk ci deux CP. yoo xam ne effectif yi mat dépassé na cinquante cinquante élèves nekk ci deux C1 yoo xam ne effectif yi mi ngi avoisiné quarante deux quarante trois élèves ak deux c yoo xam ne tamit même effective la comme c bi ak benn cm boo xam ne nii mi ngi am vingt quatre élèves. nga xam ne ni école bi yëpp bu ñu ko xayma effectif total bi mi ngi nekk ay quatre cent trente cinq élèves jàngalekat yi ñu ngi toll ci ñu ngi toll ci dix dix jàngalekat juróomi jàngalekatu français. ak juróomi jàngalekatu arabe. waa école bi franco arabe la dañuy jàng français cinquante pour cent arabe cinquante pour cent waa jigéen ñi nag ñoo ëpp loolu moom yaakaar naa euh, c'est la tendance tendance tendance bu mag la boo xam ne moom ngay fekk ci maanaam fépp ci bërëb yëpp rek euh, daanaka jigéen ñi ñoo ëpp moom ñoom ñoo ëpp légèrement góor ñi. waa école bi moom classe de CM2 nga xam ne ni élève bu ñëw ba CM2 da ngay def sa certificat ak sa entrée en soo ko amee ñu yóbbu la ci yeneen école yu mag yi nga def nga nga def foofu collège nga def nga tàmbali sa cours moyen. ci école état bi la moom école état bi la euh, suñ defee examen ci école état bi lañ leen di ci lañ leen affecté euh, école yi ñu reconnaître te état bi moom ko ci lañ leen yóbbu euh, su boobaa dañuy xool CEM bu leen gën a jege ñu ñu mën leen affecté foofu loolu mi ngi aju ci inspecteur. Euh, waaw loolu moom loolu moom vraiment euh, bokk na ci li nga xam ne ni yittewoo nañ ko lool mooy gis boo gisee boo dawalee film bi sax euh, ñaari classe képp lañ fi tabax ci ci ci ci ci maanaam neuf cours kon day mel ni am nañ sept am nañ problème mu sept sept cours yoo xam ne ni physique la waroon doon sept sept sept abri provisoire yoo xam ne dañ ko mbaar di ci liggéey condition yu difficile ma ma ànd ko nag ak jàngalekat yu jàmbaare yoo xam ne ni même buy ngelaw ak buy poussière bi di wàcc yooyu yëpp dañuy teewul dañuy ne seen classe di jàngale. moo tax ñu ngi sàkku ci képp ku ko man nga jàpp ci ndaxte condition yi nga xam ne ñu ngi ciy jàngee moom métti na te xam-xam bi gars yi di def ci xale yi tamit am na solo am solo goo xam ne bu ñu nekkoon ci ay tabax vraiment ci lañ ci maanaam ci lañ koy gën a man moo tax euh, les bonnes volontés ñu ngi leen di woo ak képp koo xam ne nii am nga sa alal te mën koo def ci xam-xam. ñu ngi ñaan nga dimbale ñu ci suñu abri provisoire yi ngir mu ngir mu ngir mu ngir mu gën a wàññeeku table banc yi day am problème parce que gis nga abri provisoire école bi am école bi dafa amul lenn lu ko wër amul dafa amul maanaam clôture te école su amul clôture condition yi nga ciy jàngee day jafe ndaxte loo fa def boo ñëwee boo xëy see fekk ñu dindi ko table banc yi dañuy xëy si sama jàngalekat dañuy jàmba dañuy xëy si fekk table banc ñu damm ko nit ñi fii ñëw doo doo leen doo leen gis doo leen te ndaxte amul amul dafa amul ca amul bunt da ngay ñëw dugg euh, ci dañuy ñëw classe yi mën a tëjee moom dinañ ko tëj kenn dafa dugg mais abri provisoire yi amul bunt euh, nit ñi dañuy ñëw damm ko wala ñu cabinet ci kawam takkal takkal tableau yi chaque altine bu ñu ñëwee ci raxas la ñuy ne ba 9h presque nga soog a mën a commencé jàngale. table yi table yi ñuy table yi ñuy joxoon yëpp yi ñu def ci abri moom damm na moom déwén yeneen table da ngay jéem a wutaat ay dénk de teg ci wala nga seet noo def. mais loolu moom posé nañu problème moom. bi dañuy xëy ba 14h dañoo waroon a gont talaata ak alxamis ci ngoon mais euh, heure yooyu ñu waroon a jàng ci ngoon yi moom lañ jël ndax 13h la ñu waroon moo tax dañ ko yóbbu ba 14h pour heure yooyu ñu mën ko euh, ñu mën ko compenser moo dañuy xëy ba 14h dañuy booy dañuy ne vacances parce que euh, ci état bi la bootu donc dafa am ay textes yu leen régir def nañ seen seen troisième trimestre. gis nga ci fin d'année bi ñu ngi prévoir neexal neexal les trois meilleurs élèves de chaque classe donc bu ñu paree école bi day tëj dañu dem vacances octobre la ñuy la ñuy kiyaat élèves mais mbindum élèves si yi war a jàng déwén moom incha allah rabbi moom moom presque euh, maanaam yow jot nañ ko commencé euh, te day continuer incha allah ba octobre. waa ndongo yi ñi ndongo yi dem vacances moom euh, liñ leen di liñ leen di soññ rek mooy ñu bañ a ñu bañ a ñu bañ a fàtte. ñu bañ man nga dem vacances école bi puisque franco arabe la ku dem vacances tamit sa programme alxuraan bii di ñëw war nga cee góorgóorlu ba nga xam ne nii booy ñëwaat fii ci école bi alxuraan ji nga waroon a jàng ci sa classe bi nga war a def day fekk mokkal nga ko hadis yi nga waroon a jàng day fekk mokkal nga ko euh, leçon yi nga jàngoon tamit boo ko manee nafaraat euh, ngir bañ a fàtte loolu it dina tax nga am niveau bu baax. waa bis bi sant rek sant euh, personnel enseignant bi sant IEF. mi nga xam ne nii Mamadou Sylla moo fi représenté tey ak euh, son secrétaire Mamadou Mbodj euh, moo di secrétaire UF sant tamit euh, mboolem directeur d'école yi nga xam ne ñoom laa nekkandool ci gox bi sant jàngalekat yi ñëw teew teew ànd ak ñun bis bi sant président CG ak CG yëpp sant parents d'élèves yi sant élèves yi sant waa koñ bi yëpp ak ñëpp ñi ñëw teewe bis ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen sant yéen it ndax euh, li ngeen def ni am na solo dina bokk ci lii gën a yaatal liggéey bi nag ba ñëpp mën cee jot ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan suñ di ñaan suñu borom defal ñu taw tawfeex